wuy ji rek ñibbiwaat këram nee na ay avocaam rek lay àndal dem bu kenn ñëw tribunal loolee kàddu Ousmane Sonko la ndax nag nee na Macky Sall ci boppam daf leen a bëgg lal ak ndëgg sërëx goo xam ne bu ñu si tàbbi ndax Sonko nee na Macky Sall na tàkk te dafa bëgg a dugal Sénégal ci kaw loole nag buñ ko ko mayee ndax jamono ji xam ngeen ne priorité yi feneen la nekkoon maanaam mooy jëm ci dund gu cher gi nga xam ne Macky Sall bëgg nañu fàtte ko te ko fàtte ke scandale 45 milliards yi nga xam ne tudd ci réew mi yéen kaay ji sorewut ak guerre ndax police ak gendarmerie ak sapeur pompier maanaam fees nañu dell ci ndakaaru yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy fasal ci xëtamu njëkk na Sonko calme le jeu Dakar sous haute surveillance kaay gi ñu xëy fekk fa Serigne Thiam dib jàngalekat université de Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci lu jëm ci wàllum droit pénal ci yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na doyen des moom nag su xoolee ne dossier bi dafa fit maanaam mën naa wax non lié maanaam dootuñu ko toppeeti dara waaye nag doyen des juges bu dégloo Ousmane Sonko jàpp na nag lu ñu koy tuumal dëgg la mën na ko mandat dépôt mën na koo déglu tamit bu yi jeexagul doyen des juges mën naa bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi ëllëg tamit mën na koo convoqué waat loole lépp mën na cee ama yéen a kaay gi di enquête nee na jamono ji noyeetuñu yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na kuréel gi xam ne mooy àtte journaliste yi nee na journaliste yi ci lu jëm ci déglu Ousmane Sonko na ngeen ci tëddee njaaxanaay yéen a kaay gi di évidence nee na Ousmane Sonko maa ngi dalal xelu militant mi nee na leen ànd leen akuk dal toog leen seen kër yi wala ku am soxla nga dem doxi ko damay dem ñu déglu ma ñu bàyyi ma ma ñibbiwaat sama kër dossier dossier bi dara nekku ci ay caaxaan rek la kenn mënu ma see tëj yéen a kaay gii di Vox Populi nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoom Khalifa Babacar Sall démb tàngal nañ ko ba mu tàng jër yéen a kaay gii di Libération Ousmane Sonko nee bi ñu koy déglu audition ordinaire la te moom si boppam moo yàgg sàkko ngir nag ñu daal di koy déglu Maymouna Bousso coalition Yewwi Askan Wi nee na Macky Sall ku soxor la Macky Sall ko bon xol la Macky Sall ku xat xol la loolee kàddu yu Maymouna Bousso la Abdou Karim xam ne moom la Ousmane Sonko amee daf ko waroon a amee 2021 yéen kaay gi di réew mi quotidien ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi nee na ñu gouvernement bu Sénégal ci lu leer nañ ñi maanaam ñooy complot Sonko waaye nag na leen am na loo xam ne dootuñu ko nangooti duñu si tàyyi duñu si bañ dara Ousmane Sonko kenn mënu koo liquider kenn mënu koo faagagal loolee moom Macky na ko xam moom akub gouvernement ma yéen kaay gi di Vox ñu xëy fekk fa docteur Abdourahmane Diouf nee na nag képp koo xam ne daal ab la Macky Sall nekkee te nag li ne moo am Sall Macky si moo war a bàyyi di manipuler li xam ne mooy justice bi docteur Babacar Diop nee lii ab complot boo xam ne état bu moo ko def Ousmane Sonko complot boo xam ne bu bon la te bu leer la yéen i kaay gii di Vox ñu xëy fekk fa Ousmane Faye nee na kàddu yi nga xam ne Khalifa Sall yëkkati na ko kàddu la yoo xam ne du kàddu yu kilifa te nag lii wane na na opposition bi maanaam nag pouvoir bi rek moo leen intéressé ba tey doyen des juges di sukkandiku bay jël nag mbir mi di ko yóbbu jugement loolee Boubacar Sadio ne ni gisu ko fenn yéen kaay gi di la témoin nee na état bu Sénégal ma ngi wane dooleem waaye nag Ousmane Sonko ma ngi calmer le jeu yéen kaay gi di la Réveil Quotidien nee na amul fenn foo xam ne mën nañu faa jaar ba mandat dépôt ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ndax mbooleem ñi nga xam ne ay témoin lañu maanaam dañoo seetal Ousmane Sonko boo si yokkee nag certificat médical bi nga xam ne wane na ne Adji Sarr kenn féewliwu ko ak audio yi nga xam ne moo tukkee ci Mamour Diallo ak Adji Sarr loole rek wane na ne ab complot la yéen kaay gi di la Tribune nee na nag Ousmane Sonko tey jii dana janoo ak doyen de juge daal di expliquer réellement lan moo xew digganteem ak Adji Sarr yéen a kaay gi de Les Échos nee na tribunal du commerce hors classe de moom nag daal nay wax opérateur bi di Free mu daal di fay nag Promobile lu toll ci cinq milliards yéen a kaay gi de Le Réveil Quotidien nee na marché gré à bi nga xam ne moom ngeen di dégg quarante cinq milliards yi état bu Sénégal daf cee def surfacturation ba doyala ndax nag marché bi a ne moo a dox diggante Siteu